asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh fattahu xew ya ya sax yow ji li li xew diya warsax ni ko ñu ana day fi azila ajilan bil bisiri ma ma din hatta hatta ko ñu nekk na ñu ci joy tuwa wax mi ni ñu ato wara sama wala aju bi am sax ni aju pour ci hal hal di muhammadin tuli ba am bara sama ka sama sama wax na amin sama ko na awto ñi ñi ñi xéer ñëpp di jiital ci ci siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha hafizahullah wa raa wa wa abqaahu dox doxalan lil muslimin wal muridin waaw kay di siyaare bu baax màggalu soxna jaara gi jaaratullahi Mariama Buso as-siddiqa turandoo moom soxna Mariama boobu moo siddiqa la waxoon waaw xam naa xam naa seen yéen bopp dara njaay yaa ngi laaj laaju njaayam ngay laaj xam naa nag da ngay laaj te xam naa laaj laaj yu am solo la jëbbalu gi ñuy wax ci murid gi maanaam maanaam mbooloo mi loolu la ñuy wax am bi amatu naas yi ñoom day wax ji di njublu na ci na ci diw te te te Sëñ Tuubaa bu wax jublu alxuraan ba ci Sëñ Tuubaa bu wax aslama lillahi lay wax waaye bu wax bu jox jublu naan jublu na boppam yàlla da nga dégg sax da nga dégg sax Balxiis naan jëbbal naa yàlla sama bopp maa Suleymaan loo xool waaw kon sëñ Murtala laay am na ko ma nekk li nekk li nekk daanaka waxee noonu bu dee de jubal naa naa si bopp mu mu ne mu mu ne may may seere sax nga jubal sa bopp yàlla waaye waaye waaye mag ñi jaayante la ñu wax jaayante loolu moo doon waxee mag ña jublu dafa gën a yaatu baat bi moom moo gën a yaatu jaayante ndax jurit bu bu nekk bala ngaa dund ak jurit da ngay jébbal sa sa mbir yàlla jaare ko ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ne nag ginnaaw da ngay jébbalu ci yàlla yéene jàng wax ja loola li nga yéene mooy jébbalu ci yàlla waaye nag li ngay def ba ñu xam ne jébbalu nga ci ci yàlla mooy mooy da ngay jaayante. mu gën a feeñee ca ca ne la si ne li bàyyi yoon ak inama li bàyyi yoon Allah yëru lay boo koy di nga ne booba sax salaay salaam sax dafa jël loxoom tëdd ba teg ca loxoom na joor ba daal na jaayantal naa ci Ousmane ca ca ca seen seen aj googee la amul usra asina uhsiru ci billah kon kon moom nga xam ne nga xam ne li ci yéeme foofu mooy yonent bi alayhi salaam moom aada ji moom daa ñëw teg seen loxo ci ci loxo mi tëdd ya ne ko ne ko jaayante nañ mu wax leen sart ya fii it salaay salaam moom Usmaan moom seen Usmaan radiyallaahu taala ñu téewul ñëpp jaayante mu mu te te moo lañ jàpp otage mu nekkoon léegi moo lañ wax ne jàpp nañ ko otage kon kon mu jël loxoom. tëdd ba tekki loxoom ba tëdd ba daal na jaayante la Ousmane moo tax bu moo tax suufiyanke nag di di wax ñoom mu bàyyaa jaayante baat bi dalay firil dalay firil jëbul gi jëbul ñu koy defee mooy jaayante hind moom Abu Sufyaan ba mu ñëwee di di jaayante sa salaam dana ko mooy jaayante man ci ne doo njaaloo mu ne ko ah asgoor du njaaloo doo sàcc mu ne ko asgoor du sàcc doo nangam doo nangam yooyu maanaam sart ya maanaam maanaam subiyanki buñ dee jaayante mag ña moo di ju jëkk ya rawin awal jaayante naa maa maa ngi jaayante sarra wa darra nga xam ne ci lu neex ci lu naqari maa ngi jaayante so so soo ma soxla woon ma ma man na ca école ba di di di jàngale sëñ bi ne kar daal ne dama laa soxla léegi doo fa nekk di di sax tàggoo bu baax bu dee murid saadix la saadixun fi iradati yi day dal di su amee jot sax ci lay jël bagage yi ba mu ba ba ba wax ja da daanoo. wa wa maahu salabul ixtiyaar yi boobaa day fa teg tànnam ndax tànn suñ ko la jël ñu ne ko lu tax mu ne li xosni sami yi jàpp na ne sëñ balam ko wax moo gën ci moom tigi tigi moom du nga sax baax bor bilaay inkaar yi kon moom du ci am linkaar linkaar ma ngi naan wax linkaar mooy du ci weddi dara daa mel ne sax dama dul xam mag ñi lu tax ñu wax ñu wax linkaar ñoom for jël ko jël jël barab suñ to suñ bàmba wax naa suñ bi da ko bind ci arab for ñu jël ko noonu for linkaar xanaa xam naa ko daa mel ne kon linkaar daa war mag ñi dégg nañ ci loo xam ne ëpp na weddi rek xam naa xam naa xam naa xam xam nga làkk yi léeg rek dañuy woroo ci saqaafaat yi ni ni ni ñuy dégg mbir demal Saalum Saalum bu jëkkoon bokk xam nga léegi bu ñu raxasu dañ naan laabul laabul joxal joxal raxasu mi ne la laabul nga dikk bawal xale ba toog ci pot boobu ba ba jóg ñu ne diw demal laabal ko ko kon te lépp kat baat yi benn la bu dee bool moom baat bi laab dañ dañ koo jël ci feq ba laab ci sobe bu dee na nag ca Saalum moom baatub laab ca wolof dëgg mooy laab lu ci ci lépp loo bëggu ci lépp lépp lu taq ci nga bëgg taggu moom loolu laab la laabu xol ak laabu yaram ak laabu yére rek waaw kon daaw yi seen salim bi moom daa daa delloo ci cosaanu baat bi tigi tigi tigi tigi wolof nag wolof yi balbal yi nag ñoom dem ci baat bi di ko lislaam cuubee cu cu cuubam googee muy cuubu fiq ba kon kon jaayante la ñuy wax boo jaayante ba noppi nag ba jóg ñu ne waa ji jëbbulu na la mu def jaayante ga mu def jëbbulu la waaye du mu dikkee di sukk moom jaayante lay def li nga wax ci ay ay jeexit suñ biir mag ña suñ mbakki busu suñ musaaka ak jëlaat saxala anuxuma laajoon na ko loolu mu ne ko mu ne ko dana amee njëbbalu dana amee ci ci ci yu bari taxal loq la la ko foofu na ñoom baat bi ci arab bi taxal loq lañ koy waxee nga xam ne taxa boo ne islam boo boo jël baatu islam ci aslama fii ko fii kon ci ci weq na noonu nga gis naan wax yu ak ilham wax yu ilham benn la waaye nag dañ ne la wax yu moom ab yonent rekkante la ab yonent la la muy wax ne yàlla wax na ko ko loola ñu naan ko wax yu bu dee na nag wàllu yu nag rekkante la ba la ne yàlla wax na ko ko ñu tuddee ko ilham kon moo tax fii kon duñu wax islam dañ naan dañ naan mu mu mu bàyyi la ñuy wax waaye waaye waaye waaye waaye waaye ba ba ba baat bi benn la. waaye ji bu dikkee kon kon si mbokk bu bu nee na nee na ko koo ñëw nee na di ko jox ay addiya di ko jox addiya di ko jox addiya kooku kat ñu ne ah kii de donc ab sëñ bi sëñ bi soxlaa woo la nangam nangam te ba si yitte kooku kooku kon mandargam da ngaa aju ci moom la waaw waaw waaw nga xam nga xam ne di ko liggéeyal nekk ci toolam ak nangam nekk ci nekk ci service am kooku yi ñu ne kii de doo doo ab sëñ bi sëñ bi lu mu bëgg a defaroon liggéeyalu ba sangam moom lay woo nga di bàyyi léppam. loolu loolu mandargam na jox na ko xolam la jox na ko lépp wa ma xaw sala salabul ixtiyaar yi ndax saabu ndigalu suñ ba jibee waagee lu nekkoon mu da da ciy génn topp ndigal la kon kooku jógu la waaw waaw waaw waaw yi ci fan yi dafa am misaal mu muy gën a leeral benn waaye dafa am dafa am waayam jukoy man manee ba mu ñëw daal ne ko daal dangaa war a joxe sa bopp waaye di ko man de joxoon naa sama bopp yàlla for leeral wax ji mu daal di ne waaw waaw joxoon na ma wérdu saasali yi su su ma koy def sax moom ci wedd bi boo noppee di ñaanal si ñaanal ñaanal si sëriñ bi ko jox moom laay ci ñaanal mu ne ko waaw waaye nag mu ne ko waaye nag bokkul loolu saa sali yëba la loola saa saa sali yëba la silsila wedd wi silsila wedd wi ci ci ci ma la jox la kon kon kon daal misaal may see xam jox saa sali yi ne ko seen seen Cheikh Amadou Fadal xadisala sirraha daa am ku ñëw fii fii moom xisabal di di gis nga ko ne ne daggante bàyyam noonu yaa am mu xaddam bàyyam mu xaddam la gént gént gis gis bàyyam ba ba mu ñetti yoon ci ci nekk da yaakaar na sax ndax du gént rek bàyyam ne ne ko demal jébbalu ji demal waa jébbalu ji fii ñu ne day ci wasaq wàkk suñu bamba yi ñoo fi ëpp ëpp xewal boobu ñetti gudd nag mu xam ne kon daal wax ji xam naa ko kon gént gi daal kon kon du ñaan mu ñëw ci suñ fallu nettali ko gént gi daal ne ko jox ma weddu tiyaan suñu fallu jox ko ko maanaam yesal ko mu ne suñu fallu nag lu may doon nag lu ma doon nag mu ne ko xanaa tiyaan mu ne ko su su ma bëggee doon murid na nu may def mu ne ko xanaa joxe sa bopp boo waxee baat bi joxe sa bopp mooy aslama ja waaye jaayante lay firi boobu kooka kooka daal di jaayante nga xamante ne te ne ma ne ma ne ne waa ji nag jaayante te te googu mooy mandargal la mooy mandargal mbir ma ne kat yow dugg nga ca dugg nga ca fii kenn fi cheikh yi booba fii si fii si seeti yi waaw waaw waaw kon kon kon loolu la ca ma ma ma ña ña wala loolaa jëlee ci ca mag ña bokkoon noonu bu dee ci la sa laaj bi ci am solo mooy liggéeyu néegum liggéeyum ndey mas naa gis mas naa gis diw sàngam mbàkke ci bindoon am maqaala ca ma jël sër boobee ja jamono di di ko weddi ne amul ak am man de man de ci sa bopp laa ko xam yëpp yiw de man yomb na ma sax bàyyi ma ko xoon gis naa ko dund naa ko liggéey yu ndey mag ñi sax dañoo wax sax ne képp ku ñuy dàkkantele ci ndeyam sax day am barke danaa gudd fan ñaari yooyu dama dama xool bu buñ ne Matar Ndumbe Jóob kokk yi buñ ne buñ ne sëñ Mor Jaara buñ ne sëñ Mbàkke Soxna Lo buñ ne buñ ne buñ ne sëñ sëñ Jeex Mati Lay sëñ ku ñu wax rek ku ñu wax rek ku ñu wax rek sëñ Cheikh Cheikh Gaynde Fatma suñ Mbàkke Madina bañ ko daa wooyee njool Aminata 1944 la ma Falma Dior ne ma ci la ko sëñ ci la ko sëñ Mbacke ma ci la ko Cheikh Moustapha tuddee tuddee ko nag sëñ Mbacke sëriñ Mbacke Madina waaw la ko jiitu woon booba lépp Dior am na ñuy wax waaye ku ñu ku ñu takkante la ci wuy juróom demal na Cheikh Anta Diop képp ku ñu ko takkante la rek Massamba Anta Thiégo Mamar Anta Sey tan ku ñu ko dakkante la rek day barkeel waaw kon kon ñoo kon mel na ne kon liggéeyum day moom lu leer nañ nañ ñi la moom lu leer nañ ñi la loo xam ne moom ku ci am tawfeex ku nekk sa day li liggéeyoon xam nga ci lu leer nañ lépp luy wut ci lu baax day da yomb da yomb demal ci alxuraan sóor ci ca Seydina Nuux alayhi salaam doom ja liggéeyam ndeyam ma ko ko yóbbu bu sawara demal ca Seydina Isa alayhi salaam liggéeyam ndeyam ma ko jox tawfeexam ya wa ummuhu siddiqa kaana yakuulan taam moom moom leer nañ ñi moom leer nañ wala sa tey addi ba dara xanaa xanaa yow sa am njaayeen bu buy laajte la rek leer nañ ok sant naa waaw mu xaqale door ko mi mi miccil ko daal daa mel ne fàtte woon naa war naa micci mi micci mu laaj bi laajtu bi moom bi mooy gis na ko xam ne ne day mel ne day bañ a ñëw sonn ci ci kër ba noppi te am doom ju mën a am ko axaanu wala yooyu axaan tontu na ko di axaan moo ne wala ba tey bu yaxru ju nabatu gisal bi wa man la si xaw sa pare nekk dara nee na moom suuf su baax jiw bu baax gàncax ga rafet suuf su suuf su bon jiw war rafetul gàncax ga woon xam wax na ko noppi daa nee na yuxrijul xayya minal mayyit nee na waaye nag nag léeg-léeg exception am nga fekk ndey ju bon ñu génne ca ku baax yuxrijul mayyita minal hayyi nee na it nee na it da nga fekk ko ku baax Seydina Noohin alayhi salaam ku baax ka doom ja mu am doom joo xam ne ma nga sawara ba mu jaaxlee ko innahu amalun xayru saalih nday jaa baaxut di su suuf san ko ji baaxut jiw yu baax na kay waaye suuf sa baaxut loolu ko loolu ko ci ci ci kon moom leer na léeg-léeg ba beneen laajtu bi kooka léeg ñu gis jigéen joo xam ne daa ne ci ci ci kër doon sàmb àllaar liggéey liggéey amul dara nee ñu sàmb àllaar mag ñi nee ñu mooy koo xam ne waa gox ba tund wa dañ koy tagg te kër ga di ko xarab nga xam ne moom moom la ñuy waxaat di ko firiwaat ne man gan tëray dëkk kooku mooy sàmb àllaar saabu bu demoon bay tas kon jëpp ñëw taxaw ne ah kii de moom nangam kii de wax raatoo raatoo man de kii ne ko man de damay fóotal kii naa ne damay jox nangam damay dimbale nangam nangam ci waaye nag borom kër ba moom safaan yooyu rek la gis gis gaa gaa yi koy ne nettali di di ko misaal ne sëñ bi so soxna sa daa soxna sa sa daa faatu andi ko di ko jullee ne ne ne ko seedeel tum naa buñ koy jëba noppi ne ko seedeel mu ne ah man de lan lan dong laa mën a seede mooy tey képp de laa mas a wax te tegu ci ci baat waaw beneen waaye dina ci la ma ne rakkam la la doon jëla soxna ba mu dikkee kera bañ ko dijjee sukk baay bi di ko ñaar baay bi ne ko ah baayam bi ne ko su fa amee at day mu jaaxal ma lool ne ko fii mu sukk nii de sukk na na fi saaga ma taxawoon na taxawoon na fi saaga ma ma ne ko ah ma ne ko ku ko ne xanaa kon booba ngeen xam ne kon yëfi kii yëfi kii ne kon kon ñooy kon sawante sama auto salaamaaleykum sama auto ok beneen xaq kon mu ngi leerluwaat kon ci ci nekk na liggéeyam nday nu muy feeñee waaw man de dama sàmbaay bi ci waxoon de waaw daal dina adduna de lu ngeen ci bëgg mu yomb leen waaw nga xam ne kon lu leen ci bëgg ci aw yiw kon lay wax mu yomb leen waaw nga xam ne ni ni yiw woon nag xam naa ko moom it kon tigi tigi nag muy batin nag batin batin moom batin waaw nga xam ne nag ñu bari ñoom dañ koy xoolee ci matière ci ci matériel waaye ci waay ci waay batin la na na demal ci soxna jaara dund na mu ci metti waag nangam na am de xool kë xool kë ma am waaw waaw waaw waaw demal ca soxna Mariam mu ndey si Sidina Isa alayhi salaam imratu Imran ndey ja xool ko nekkoon nekkoon ca jàkka ja ca Naasira ca Mahmoud Mahmoud Naasira moo fa nekkoon daa ko buub ba ñaanam yàlla nag may ko doom ju góor di ko mën a jàppale ci liggéey bi inni nisatul inni nisatul lakk maa fi bani muharrara pour moo tax xaaral bi nii waratuha unta wa si kal kalu sa loolu leer na kon waaye ci ci ci ci waaye nag suñu moom def ko mu ne mu nekk meññet nabaatan xasanan nga xam ne doomam jooju daal di am wilaaya foor kon ma daxala alayha Sakariya al-mihraba wajada indahaa rizqan saa bu Sakariya bokkam ma duggee ca ci dakk bi fekk ko fa ay foyte pour bi foyte foyte yoo xam ne jamono mu ak sikut ah xaaral yaa ma mu ana la kaasa ma Mariam yow foo jëlee lii qaalat huwa min indillah ma nga jógee ci borom ba de ah moo ko inna allaha yarzuqu man yashaa'u bi ghayri hisaab yàlla day yàlla day day mën naa woo sëgale ku ko soob ci lu dul ma di ko teg ci ay session ay jamono di ko ci lu mu koy nattale nga xam ne foofa day jigéen nga gàggante suñu góor hunaalika foofale ndax sakari rabb rabb ndax ndax moom doo soxna sa da daa màggatoon mu mu ba noppi ñu ne ñu ne weesu naa am doom dara jàpp ne na loolu moom jeex na waaye ba ba mu ñaanee doom ji am na kon de ñoo kon xam naa liggéey ba gis nga moom gën na ko leeral ca ca Sayyidatuna Maryama alayha salaam ba ba mu koy tërbiyee dana ko yaa Maryama qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raaki'iin yow Maryama day ah na nga na nga na nga jaamu yàlla del del julli del sujjóot del rukkoo kon del jaamu yàlla wax kay nga xamante ne ne loolaay tërbiyaam nga. yaakaar naa Modou dina dina tegaat waxtaanu so so soxna jaara woon yaakaar naa loolu lépp dana ci ca leer lay ju liggéey comme doon ci lan lay feeñe nu muy liggéey liggéey ba ak nu muy feeñe Sayyidatuna Maryama mu jëkk ma alayhi salaam moom jur na doom joo xam ne kenn la ci jamonoom Sayyidatuna Maryama as-saaniya mii moom it radiyallaahu anhaa jur na doom joo xam ne kenn la ci jamonoom demal ci soxna aw busu jur na doom joo xam ne kenn la demal ci soxna Aminta Lo jur na doom joo xam ne kenn kenn la ci jamonoom kon de xanaa kon mbir ma kon kon leer na waaye ci ci waaye kat mën naa feeñ ci feeñ ci adduna ndax mën naa am ko booba soxna sax da caa fasam booba baat bu am solo fas mag ñooñu ngeen wax nag dañ daa fas waaye jamono yi day kuy fas it la ngay fas boo fekkee texet nga lay lay doon ndax ndax mën naa am jigéen ñi li ci ëpp léegi sama doom tekki na mooy alal la ñu wax tekki maam an suñoon leeralal na maam su ñang laate addidit maam su ñang la ma doon leeral moom mooy ngañ ñi ngañ ñi mattum ngañ ñi mu ne ma nijaay ngañ ji mooy lan mu ne ko ma delloo ko laaj bo mu ne ma mu ne ma waaw mag ñi ñu matt mu dëgër mu moom matt moomu xeer yooyu li ñu jël te teg ko ci taal bi bu ñu demee ci tool yi ba dikk bu ñu bu ñu fengalee matt ma sa war a wane ngañ ñu ne ñu ne mattum ngañ matt boo xam ne dina boo ko fengalee ngañ waaw kay waaye sëñ sëñ sëñ Bachir Samba xarit daa moom waxoon ne ma moom moom moom waxoon ne ma tekki tekki da ngaa ma ne ma tekki ma mag ña bu su su gan ñëwee su gan su gan ñëwee andi nuyoo. ñu ne ñu ne demal xool ko ba xam ndax tekki na tekki na am déet bu demee dikk dikk bu demee dikk na tekki na ñu ne ko na nga ko wutal ndox ak akum ngooñ ñu dem jox ko fa suba mooy booba daa ba jàng booba ñaan na nag bu bu defee loolu loolu nag ngan nga ci ci loolu ci loolu lay tër dinaa tekki na moom jaar koy ki ki defaral ab ab ab gàtt. bu bu ndaw la di di dikkee ne tekki wu de ngan nga no- noonu lay doxee moo tax ñu moo tax moo tax ñu ñu ñu dem ba wax naan naan diw tekki na tekki na kon xanaa kon su su fekkee Aliou Badara kon yooyu mën naa am leer na.